oustaz ñu dugg xam naa waxtu bi li ci des bëreetul koor gi rek ñu laal ci tuuti ndax mën ta ñàkk koor gi laay dellusiwaat tuuti ci li nga xamante ni oustaz euh, weeru koor euh, nañ ko ñu ñëw ci wàllu li nga xamante ne xëy na euh, moom laay wax ci li ko yàq dañuy dugg directement ci koor gi ci ki nga xamante ni tey ñëw na ci weeru koor muy ci wàllu xam naa ci wàllu salaatu bi sax foofu lay dal directement salaatu bi am na ñoo xam ne oustaz dañ fay daanu ci lu ci bari bari dañuy salaatu ba noppi gaa yi daanu am gis nga Muntaqa li may dénk sénégalais yi képp ku fajar jotati cinq heures du matin. waaw kër la wax man. su parce que version yi dafa bëri. ba ko fële. cinq lekkal li nga bëgg a lekk Omar naan li nga bëgg a naan Omar baax na pare ci bu jant bi sooyee dogal waaye dogee lu lew muntaqa bu dogee lu lewul amul koor hmm. su weeru feeñee yéenil ci guddi gi woor soo feebaree dog ko yéene boo boo wéree yéene waatal koo dégg ne weeri feeñ na wooral nay jullit wooral sa koor amul tariixa amul dara c'est ça loolu mooy weeru koor bu fajaree cinq heures lekkal su jant bi sooyee dogal lii mooy weeru koor wi wa salaam. ñaar ñi ànd nag salaatu bett leen oustaz. Ah, non non oustaz yi tam non non xam nga. Euh, damaa sonn. waaw. <laughs> sama gis nga déglu rek. Mhm. Iran muy sëyeeg jabaram. xooluma heure. defuma dara. Mhm. ma nekk ci kawam di sëy ñu salaatu. suñu jàkka salaatoog beneen jàkka salaatoo ci yam fekk ma ci kawam naa wàcc am naa ko su fekkee sama mën yoo ngi tuuru te moom mën ni yoom tuuruwul na ma ba ma daanu am naa koor am na koor su fekkee sama mën yoo ngi tuuru àndatuma ak sama sago ba ma xuma moom man damay fay rekk moom day fay kaafaara su fekkee maag moom a ngi sëy mën ni yoom di tuuru man sama mën yu tuuroogul kon man am naa sago moom amul sago naa coupé mu am koor ma am koor dégg nga su fekkee nag mën ni ngi tuuru man sama mën yu tuuruwul ma bàyyi ko ñu continuer sëy man damay fay kaafaara moom day fay benn bés ba déwén. wala ba beneen yoon. macha allah jërëjëf jërëjëf oustaz sant nañ ko bu baax. ayca mbokk itam ak disponibilité am ñu koy santaat bu baax. Euh, mbokk yi jàmm ji info noonu la woon di ñaan euh, allah buur bi subhanahu wa du léegu dal fanam doole ko defal tawféex tey sëriñ na jaax defal ko saxaat daa ki barke yonent mi yàgg fi loolu oustaz ñu lay gërëm di sant bu baax mbokk yi noonu la ñu dellu si woon di leen wax rek di leen jox di daje ci beneen jamono ci weeru Shahradan al Mubarak euh, Omar ñu koy sanat ci caméra bi présentation bi seen mbokk taalibi la woon Mouhamadou Lamine Mountakha yàlla mi borom jàmm teet ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla sa borom bi doolu ñuy defal jàmm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jàmm ji info point net informer éduquer et divertir dans la paix yow mu bëgg a